ba tax na ñi nga xam ne ñoo tardé woon série yi à chaque fois mu ngeen ko damm ci seen émission bi di Zap Série tey nag ñu tànnal leen quelques séries yoo xam ne dañ koy développé commencé ko ci série boobu bi moo la gën a ànd ci ak Aïda Patra ak sœuram boobu di Mati Doakon l'équipe de choc Aïda Patra nag dafa am pour mission découvrir ki nga xam ne mooy Khadiba ak DS Major Khadiba moom nag dafa détourné woon xaalis bu bëri ci jëkkëram jooju

bu ñu jógee ci série boobu bi moo la gën a ba léegi ñu jàll ci wiiri wiiri Lada yaa ngi jamono bi secret bi ñu viol bi ñëpp xam nañ ko Adja Mbamba nekk dootu koy faj ndax Lada yaa daa tëgg mbir ba tey li ñuy laam-laamee tey mooy ndax papa yi ñoom moom moo violé Lada yaa lu mu ci mënti doon mu xëcc ndànk suñu chaise toog xaar suite bi ba tey mbokk yi ñu ngi ci jamono ñu ngi ci jamono yi weeru koor laajal naa leen lan mooy yang soit laa jàppale ko ndax ba léegi gis nañ ne si tur théâtral ku ci nekk yaa ngi passé maximum pour satisfaire sa fans ndax gis nañ rawalaale nañ kooru bi deew bàyyi bàyyi rek macro na jamono yi ñu ngi wàccee àdduna kër gi ak koor gi te suñ ginnaaw kooru jaraaf aussi ngi yëngal ma di interne ban ngeen gis ne mooy def jamono la ñuy yemal jox leen di pré prochainement ci seen o número Revue de série jaa ngeen